wa inni u'iizuha bika wa durriyataha min ash-shaytaani r-rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sh-shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi r-rahmaani r-rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu giñ def di leen ndokkeel itam ci weer wu tedd wii di weeru safar di weer wu màgg yitam nga xam ne moo làmboo bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii di bisab ndigal kon ñoo ngi ci ndokkeel mbokki jullit yépp waaye di ci ndokkeel kilifa gi di a Seex Muhammadul Muntaqa ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu may ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale mboolem naaram yi ci ak kattan dañ ànd koog moom. mbokk yi ginnaaw dañoo nekk ci weeru màgge noonu nag dëggmal xew-xew bu màgge noonu war nañoo waxtu nekk la war ñuy nafaraat dund ak sëriñ bi radiyallahu anhu ngir man caa roye ak jële ci ay bind tey jii nag ginnaaw liñ ko mën a roye bari na te luñ ca roy itam mu amal ñu njariñ ñoo bëgg a dellusiwaat ci wàccuwaay bi nga xamante ni julli amoon na ko ci ak dundam moom sëriñ bi radiyallahu anhu ndaxte kat ci lim daan yëngatu ci toolab lislaam yaatu na waaye jeexit ji ci julli am nag néewaana nga gis ko ci yeneen ya ndax daana yëngu ci ay anam yu bari mook taalibeem ya waaye bokk na ci jeexit yiñ gën a miin fii la jullee woon fii la jullee woon léeg-léeg nga gis ko ci fu dara nekkut muy ab àll sax kii la jullee woon ñu wutal ko màndarga léeg-léeg nga gis ci ab dëkk te yu ci bari itam soppeeku nekk jàkka wala mu nekk juma ngir yéeneem juree jëm amoon ak fam tegoon julli ndax xam gim xamoon ne julli mooy jëmbët ci jaam bi mu nangul yàlla tabaraka wa borom bi bind ko mu nekk ab jaamam julli itam ci lañ mën a wéetale bi tabaraka wa taala ci lañ ko mën a sante te buñ seet julli itam bokk na ca yam làmboo mooy dikrullahi tudd yàlla akki taxawaay ak i rukon ak i sujjóot toogaay moo tax nag julli moomu yaram wépp ñoo koy defandoo ku ko defee ca anam gañ la ko digale sa yaram yëpp moo koy yëgandoo defandoo ko cër yëpp ànd ca te taxawal julli itam day dindi ak rëy ca koy taxawal te defe ko nañ ko digale di dindi ci moom wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw loolu la borom bi tënk ci laay ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratul ankabut fa mu waxee ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli ku ko def te defe ko ca anam gañ la digloon day dox sa diggante ci ak jëf ju ñaaw ak wax ju ñaaw kon nag ku yàgga julli ba noppi nag gisoo mu dox sa diggante ak jëf ju ñaaw ak wax ju ñaaw war nga xoolaat li manque ci yow loole ñu yaakaar ne nag moo manque ci yow ca lañ bëgg a jooyal waxtaan wi mu jëm ca ndax julli dafa am teggin yu feeñ ak yu nëbbu ñu koy tuddee al aadaabu zaahira teggin yu feeñ yooyu cër yi ñoo koy jëf teggin yu feeñ yooyu mooy nga sàmmonteeg farate julli ya sàmmonteeg sunna ya sàmmonteeg sart ya waaye teggin ya biire nag mooy jëfi xol ya nag te mooy ragal yàlla ak yëg yàlla loolu nga xamante ne mooy ragal yàlla ci biir ak julli nag mooy ponk bi nga xamante ni mooy waral laabal xol mooy waral itam bu ko nit ki bàyyee xel muy yëg yàlla ci biir julli gi ak jox ko cër bam yeyoo mooy laabal ab xolam ba inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari jooju mën a feeñ ci moom ndax ni ñuy jullee ci liy feeñ ci cër yi ci cër yi ñëpp ko xam ni ñuy jullee ci cër yi mel na ne jullit yi jullit bu yàgg ci biir lislaam doo ko umpale waaye nag ni xool di jullee nag moom mën nañoo wax ne ñi ëpp ci jullit ñiy julli réere nañ ko kon di waxtaane li ëpp ci jullit yi loo xam ne xam nañ ko am na njariñ waaye nag la nga xamante nii nag am na njariñ lool booy def na koy waxtaane te mooy waxtaan wi fi mu jëm te mooy ragal yàlla ci biir ak julli ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat xam gum xamoon ne ragal yàlla ci biir ak julli am na solo lool ba def koo jàppoon xam-xam bu beru ba yeggoon ci ne sax xam-xam bi ñuy njëkkatee njëkk yëkkatee ci kaw suuf mu raaf fi mu far fi mooy xam-xamu ragal yàlla ak yëg ko ci biir julli moo taxoon mu waxoon ne awwalu ilmin yurfau min al ardi al qusu te ragal yàlla ci biir julli te mooy nga bàyyi xel yàlla bokk na ci màndarga yi tax mandarga yi texe yi sunu borom jiital nit ki bu dee yëg yàlla ci biir ak bokk na ca mandarga ya sunu borom njëkk a tudd ba muy wax melokaan ak mandarga yi nga xamante ni ku ragal yàlla bokk na ci melokaanam ak mandargaam moo taxoon mu ne ci laaye benn ba jàpp ñaar ci suratul muminuun qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xaasiun loolu mu ko jiital rek te mooy yëg yàlla ragal ko ci biir ak julli jiital googu mu ko jiital rek moo ko gën a jox daraja ba kuy julli itam war koo bàyyi xel te ña ragal yàlla itam ñoom la sunu borom bégal wa bashiril muxbitin alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wassaabiriina ala maa asaabahum walmuqiimi salaati wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ñoo ñee nga xam ne ñooy ñaragal yàlla itam bégal googu ci ñoom la jëm kon war koy bàyyi xel أكبر أشهد أن لا إله إلا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 allahu akbar tax mu bindoon ne qad nassa fi talifihi man alima bi anna lilsalaati nuuran azuma wa anna daaka nuura yusriqu bi qalbu musallin qaasiin fantabihi nee julli dafa am ak leer gu màgg waaye nag leer googee xol ba mooy xol ba nga ni bu dee julli day bàyyi xel yàlla sunu borom tabaraka wa moo taxoon mu ne ne kon nag na ngeen bàyyi ci julli ndax bokk na ci jamu yàlla yi gën wa xaafidan ala salaati innaha xayrul ibadati fa azim sanaha mu tegoon ci ne bul bàyyi seytaane muy foyee sa xol ndax bëggut moom seytaane lu dul far leer gi nga mën a amee ci biir julli te soo ko bàyyee ba mu fo ci sa leer googee la lay xañ laa tatruki seytaana xatta yalcaba bilqalbi laa tamil lahu fa tuctaba li annahu yatmisu nuura qalbika wa laddatan min nuuriha yaxrimuka waaye mu teg ca ne itam loolu sunu borom wax ne julli day dox diggante nit ki ak jëf ñaaw ak wax ju ñaaw nee kat loola mi ngi aju ci ragal yàlla ak nit ki julli bàyyee xel yàlla waalam bi annaha an ilfaxsaai wa munkarin tanha bila xafaai lakin daa bi sababi lxusuuci la bi gayrihi faxsa wa naa il malala nee nag waxtu wu nekk na ngay ci yàlla mu lay ngir mu dimbala ba ragal yàlla googee nga koy mën a am ndax boo sàkkoo ndimbal ci kudul yàlla man nga bañ a am ndimbal fa bi rabbika al muini dastiaan wa in bi gayrihi staanta la tuaan kon bokk na ci sart yi nga xamante ni dana war a mën a tegtale ne ak ragal yàlla ak bàyyi xel yàlla ci biir julli luñ sàkku di sunu borom wax ci laaye fukk ak ñeent ci suuratu taaha aqimi salaata li dikri nee na taxawal julli ngir dima ma fàttaliku man yàlla te lay safaana fàttaliku nag mooy càggante kon nag ginnaaw julli dañ la ko digal ngir ngay fàttaliku yàlla sunu borom tabaraka wa kon naka la ñuy gisee koo xamante ni julleem gépp daf ko sàggane ba bàyyiwut xel yàlla kookaakat na ko wóor ne càgganteem googu mooy dox diggante ak am tuyaaba ci julleem googe te càggante googu itam sunu borom dafa tere woon yonent bi ne ko bul bokk ci way sàggan yi ci laaye ñaar téeméer ak juróom ci suratul araf wala takum min al ghafilin bul bokk ci way sàggan yi sàggan nag munta weesu nekk ci ak julli bam jeex sa nekk ci keneen wala leneen ku dul yàlla te sax biir julli ay ñaan la ak zikr bokk na ci ñaan yi nekk ci saar wi ñuy jàng ci julli gu ne te mooy fatiha ihdina sirat al mustaqim yow yàlla yàlla na teg ca yàlla na ñu teg ca yoon wa gën a jub looy ñaane noonu nag su fekkee sab xol ba làmmiñ way tudd loola ma nga ak ma nga ànd ba xamul la ngay wax sax wala ma ngay xalaat leneen boobaa dañ xam ne kon njàng moo mee mu doon njàng lam ca waroon a jëriñoo ci julli ak zikkar ya mu def ci biir julli ak tagg yàlla ga ak toroxlu ga ak ñaan ga su ca bàyyiwut xel du ca am lam ca doon séntu kon zikr yi muy alquran ji ngay jàng faateeg saar wala laaya ak ñaan yi ngay def yooyu yëpp dañuy bëgg nga bàyyi ca xel yàlla bu dee rukon yi ak sujjóot yi lam ci bëgg mooy nga xam ne màggal yàlla lañ ci jublu waaye rukon ak sujjóot muy sëgg ak siggi su fekkente ni maanaam màggal yàlla jubluwoo ko ca weesu wut yëngal sa ginnaaw ak sa sa sa bopp te loola ab coona nga cay jële waaye loola taxutoon ñuy wax julli ba jàppe woon ko mooy mu nekk kenoog diine ak luy teqale diggante kéefër ak islaam kon ku nekk xam na ne sëgg ak sigg ba taxut waaye kon na ngay sëgg ak di sigg ko def ngir màggal yàlla màggal googee nga koy màggal moo tax ñu lay def loolu kon ak sujjóot moo tax nit ku baax ku ñu wax Sufyaanu Sawri waxoon ne man lam yaxsan fasadat salaatuhu nee na kuy julli te bàyyiwoo xel yàlla ci sag julli ba julli ga jeex sag julli matut alxasan tam waxoon ne gépp julli goo xamante ni nit ki du ca teewlu boroomam naka wóor ne fa hiya ilal uqubati asran la wax nee na dafa mel ne kuy njëkkante jëm ci mbugal maasum nu jabal tam waxoon ne kuy julli di bàyyi xel àdduna te bàyyi woo xel sa borom tabaraka wa taala ba kuy julli di mën a xam ko féete ndeyjoor wala di bàyyi xel ka ko féete càmmooñ te tay ko te nekk ci biir julli ga na kooka ak jullem matut man arafa man ala yaminihi wa shimalihi mutaammidan wa huwa fi salaati fala salaata lahu loolu la yonent bi wasalaam tam tënkoon am na ci ñi ñoo ne day danañ julli te buñ jullee ba noppi lañ cay am ca tuyaaba buñ ko xaajoon juróom-benn xaaj duñ am benn xaaj ba wala julli ba noppi buñ ko xaajoon tuyaaba ca nekkoon ya ca nekkoon buñ ko xaajoon fukki xaaj duñ am benn xaaj ba ana lan moo manqué kon mooy ñàkk a bàyyi xel yàlla ak di ko fuglu ci biir julli ga inna al abda la yusalli salaata la yuktabu lahu sudusuha wala usruha abdulwahid ibnu zeyd waxoon ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ne laysa lil abdi min salaatihi illa ma aqala minha nit ki amut ci julleem ci tuyaaba lu dul lam bàyyi xel yàlla ci biir julli ga kon lii tënk loolu mooy teewlu boo nekkee ci ak julli dal am na ci wàccuwaay ba mel ne bu nekkoon aw yaram mooy ruux ga kon nag li lay may ngay mën a teewlu am na lu ci borom xam-xam yi tënk ba ci njëkk mooy ko xudurul qalbi te mooy nga teewlu ci sa xol mooy nga féexal sa ci lépp loo xam ne bokk ci julli gi nga génne ko ca bul xalaat yenn xalaati àdduna da ngay jéem a xam maanaa yi e, yi nga yi ngay jàng loola nag ngir nga xam maanaa yi itam day dellusiwaat ci li ñu sëriñ bi soññ waxtu wu nekk te mooy xam-xam ndax boo dee jàng looy xam ci laaye ya ca ngay gën a mën a euh, teewlu waaye soo ko xamut tam nag wala ngay jàng araf ya te bàyyi woo ko xel itam loolu day andi ay jafe-jafe kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabarak wa taala mu xiirtal ñu ci bu ñuy julli ñu koy bàyyi xel di ñaan yàlla sunu borom tabarak wa taala itam teewlu googu mu defal ñu ko di ko ñaan itam mu yàggal fi sëriñ bi te may ko fan bu gudd ak wér ba mu yeggale mboolam naalam yi tañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله المرشد المعين مدبر أمور الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أجل سخيع في المذنبين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه جعل للإسلام قواعد وأركانا وأمرنا بإقامتها سرا وإعلانا وجعل أعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمسة وحطم علينا إقامتها في أوقاتها التي بينها لنا بلا لبس وجعل ذلك من أفضل القربات وأجل الأعمال المقربات وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن إضاعة الصلاة من أكبر الكبائر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين الحمد لله الذي عظم كرمه وعمت البلاد نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود وعلى آله وأصحابه ذوي المعرفة والشهود أما بعد فيا أيها الناس إن الموفق السعيد من نظر واعتبر وتأمل فيما مضى وغبر واتهظ بمصارع السالفين وقد كانوا يرجون رحمة ربهم خائفين فلم يغتروا بنعم الله ودوامها ولا يئسوا من رحمته عند انعدامها بل كانوا كالطائر بين جناحيه لا يخافون إلا مولاهم ولا يرجون إلا ما لديه waqad qarana subhanahu bayna alwacdi walwacid fi gayri ma ayatin min alquran almajid ka qawlih nabbi cibadi anni ana algafuru rahim wa anna cadabi huwa alcadabu allalim وكونوا راجين من الله رحمته خائفين عذابه مشفقين من عدله منتظرين فضله وثوابه اللهم أدم علينا نعمتك ومنتك وأجرنا من العذاب المهين بفضلك وكرمك واغفر لنا ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غاء نحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الله أكبر الله أتلتك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع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 شربهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا asalaamaaleykum. asalaam. bismillah bismillah